fa tabaarakallaahu ñu fas yéene leen ñëw ak yéen tey ci naafila bés bi naafila bés bu tey bi incha allahu taala juróom-benn rakaa la muy six rakaa di trois sëlmal rakaa bu ci nekk yaa ngi ciy jàng benn fatiha ñetti qul huwa allahu ahad ba saar yu jeex muy ñetti sëlmal di juróom-benn rakaa incha allah naafila tey bi te rek bu leen fàtte ne mbokk yi ñu ngi al ashrul axir min chahri ramadan ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi fa tabarakallahu ci weeru koor gi nga xam ne li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamul nu mu toll nga xam ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na naafila lu bari waaye fokki fan yi mujj yi nag ci weeru koor gi da ko daan fanaanee naafila def li'tikaaf dem ci jàkk ja nekk fa fa la julli di sëlmal di julli di ñaan yàlla di julli di sëlmal di ñaan yàlla di julli di sëlmal di ñaan yàlla ndax niñ ko jàngee woon axiruhu itqun min an naar ndax yàlla mbugal ñu musal ñu ci safara yàlla musal ñu ci safara mbokk yi yàlla ñu yàlla musal ci safara ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee kon loolu mooy naafila tay bi di juróom benn rakaa di ñetti sëlmal rakaa bu ci nekk benn fatiha nga ci jàng ak ñetti qul huwa allahu ahad ba saar wi jeex inchaa allah ku ko def nag di nga am yoolu laylatul qadri te mbokk yi laylatul qadri xayrun min alfi shahrin moo gën junni weer yoo jaamu yàlla ba yàlla nangul la ko junniy weer mooy quatre-vingt-trois ans quatre mois yow jaamu yàlla ba yàlla nangul la ko bu la yàlla nangulee ci guddi gii moo gën loolu yëpp mbokk yi fa tabaarakallahu kon nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla yi ñaan yàlla sa yàlla sawaral sunu ruux sawaral cër ci jaamu yàlla ci darajay sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi naafila tay bi di euh, vingt-quatrième nuit inchaa allahu taala noonu la tëddee ñu ñaan yàlla yàlla nanguñu ci darajay sayyiduna muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu